cant ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di RTV Dakar li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door a communiqué bi nga xamante ne coalition Sonko président 2024 daal dinañ koy fësal ñoom nag ña ngay daal di xam ne rek ñëpp ñoo xamante ne yaa ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew nag ñu daal di def ab jàng rek ci lu xew ci biir Sénégal niki 16 mars 2021 ba nag ni da coalition mi ñu dippee nag parti composé du Front national de l'Union des forces patriotiques ak comité de réflexion nag ngir développement intégral ñeel ñeel candidature kii di Ousmane Sonko nag candidat ci jongante présidentielle yi doon ci atum 2024 koy dund moom Ousmane Sonko ci jëmi bopp nag ginnaaw bu mu tànnee kii di avocat bi di maître Ciré Clédor Ly ngir mu nekk mandataire am nag mbir mu nu mel waral rek ñu daal di yëkkati nag seen kàddu jaarale ko ci ak coalition boo xamante ne rek dafa ñeel parti bi nga xamante ne rek moom la ñu notifié ca kanamu conseil constitutionnel nit ki fukki fan benn ci bi ñu nekk 2023 ak yi nga xamante ne daal déposé rek niki fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2024 euh, waaye nag niki 14 décembre 2023 nag greffier bi ci jëmi boppam nag euh, dafa daal di rek yóbbu conseil constitutionnel ba noppi rek di sàkku mu yónnee ko ab convocation boo xamante ne rek dinañu mën a amal ab tirage au sort boo xamante ne jaarale nañ ko niki tey rek ci ajjuma ji moo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre kii di Ousmane publication définitive yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk euh, candidat yu a dem nag ci jongante présidentielle yi doon ma ci atum waaye kii di Sonko nag nee daal am na xel mu dal lool ci liggéey bi nga xamante ne conseil constitutionnel euh, daal dina koy amal ñeel processus électoral bi waaye nag arrêté bi nga xamante ne ministériel da jógee ko ndax état bu Sénégal ci jëmmi boppam nag jéem na moyen bu nekk rek pour empêcher candidature moo xamante ne rek ñëpp ko daal di fekkee waral rek kii di maître Ciré Clédor Ly daal di yëkkati kàddoom avenir Sénégal rawatina démocratie jamono ji nag nekkul ci loxoy kenn ku ci juróom-ñaari signature yi nga xamante ñoom ñoo faree ca conseil constitutionnel kon nag bu ñu bëggee Sénégal démocratie sax fi dàkk rek faw ñu jëfee nga xamante rek moom la yoon daal di wax nga xamante rek kii di maître Ciré Clédor Ly dina ko 5 février 2024 jërë vous jëf ci vous bi bu leen fàttee abonné ba cloche de notification ngir amaat yeneen di info